le temps est-ce que tey la fédération euh, tey moom ngi def les démarches qu'il faut pour que ñu bañ dugg ci durée yàgg yi nii parce que aussi on peut pas avoir des athlètes yoo xam ne kenn xamul ci conditions yi ñuy demee benn chaque fois dañ koy kaas bu ñu yeggee foofu noonu aussi kenn du xam après ñu def de de pour lan pour le pays pour l'amour bi nga moom la am pour ce drapeau là et puis arrivé tey à d'une compétition Euh, duñu la jox loo xam ne tey jii euh, maanaam euh, yegg na wala bo parce que mënu mënuñ ko sax nat parce que tey une médaille d'or pour un pays ñu yóbbu raay bi foofu noonu tey mënuñu la fay. Mhm. parce que je pense que tey jii waxu 10 000 francs yi noonu ngay wax sax pour man tey defet la ci état bu Sénégal mu koy yëkkati tey pour un athlète boo xam ne tey 10 000 francs mënuloo ko ndekkee tey ci réewu jàmbur. <laughs> waxuma la fii nii donc tey vous au niveau de la fédération tey yan démarche ngeen nekk tey di mettre pour que Sénégal au moins. changer tey li nga xam moom moo nekk tey nekkinu athlètes yooyu noonu parce que aussi li ñu faral di bëgg a gis tan yi ni moom moo nekk tey balaa ñu laa honoré ma say mbokk ñàkk la. merci Grégoire bu baax poser aussi question yoo xam ne yu pertinente la te mooy amal solo mooy amal njariñ réew mi mooy amal njariñ sportif yi mooy amal njariñ aussi état du Sénégal parce que état du Sénégal aussi dañ leen a fal. Mm-hmm. askan wi moo leen fal. te askanu Sénégal dafa am particularité mooy 70 pour cent de jeunes la am. Mhm. et quand on parle de sport on parle de jeunes. sport xale yi koy def te xale yi ñoo fal ñi fi nekk tey maintenant il ne pas qu'il tombe dans le creux de la vague xam nga loolu mooy lan mooy fi doon kaas. Mhm. ci ñi fi nekkoon ba jëlee leen fi ñoom bu ñëwee waruñu ko def dañ ko war a saafara dañ ko war a saafara je peux bien les comprendre. on est dans le délai des 100 jours on est nangam ñoo ngi ci refonte du code du sport c'est le moment mmh. de prendre en compte cet arrêté la nga xam ne c'est un arrêté qui est caduc qui n'est plus adapté au contexte actuel nga jël ko changer ko on ne parle par d'équité d'égalité du moins mais il faut une certaine équité mënuñ jël football tollale ko kii football c'est une industrie du sport ça mhm. génère beaucoup de moyens waxuñu ñu tolloole leen mais il faut que cette équité et l'équité comme ni nga ko waxee sànq ku def lu rëy am lu rëy. jugeons les gens sur les résultats. jugeons les gens sur les résultats. quand tu prends l'athlétisme en question depuis 60 ba léegi amul ku ko fi ëpp résultat. amul ku ko fi ëpp résultat demal ANPS euh, nga jël la Lion d'or athlétisme yi jël na ko 10 fois. amul beneen sport bu ko fi jël. 10 mhm. mhm. fois amul beneen sport bu ko fi jël donc sur le plan des résultats y' a y' a photo. Mhm. maintenant lu ñuy wax mooy. Mhm. ñoo ngi ci la refonte des textes di def la code de sport ci en cours qui n'est pas encore finalisé. Mhm. nañu ba arrêté bii nii nañ ko jëlaale en compte wala ñu indi des facteurs compensateurs yoo xam ne xale yi dootuñu jooy lii. ñëpp la beneen bi ci topp mooy yaa ngi ko wax léegi da ngay dem ba pare sport nga toog fii mais ñaata sport. xam ngay romb fii non seulement doo leen xàmmee wala da nga leen sax yërëm. c'est pas bien. il faut que les gens pensent à la reconversion des sportifs. surtout ñi nga xam ne dañoo rëkkat yëkkati raay Sénégal wala ñu nekk ay internationaux. Sénégal daf leen wara bàyyi xel. li nga wax rek. bala cee lu kenn rek dafa dee. mais ñaata ñoo bàyyi sport nga xam ne ay internationaux lañ tey ñenn ñi ngi sont dans la diaspora ñeneen ñi ñibbisi nañ ñi ngi fi. xoolal kenn xamu leen kenn déggu leen. te pourtant ñi ngi dellu ci seen discipline di yëngatu bu baax ñenn ñi nekk ci yeneen dëkk yi France Italie ak feneen. di jàppaat ci seen discipline bi leen taxa kii nii mais xoolal ba léegi amul benn benn benn programme bu ñu teg pour ces anciens sportifs là. Mhm. et c'est pas normal. Mhm. d'accord mais président euh, ba tey euh, mais bi ngeen jógee fii est-ce que ñu ngi wax ne ñi nga xamante ne di autorité am na